salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. George fii la. waaw George waaw mi ngi fi. waaw George. déedéet ñun kii madame Tall la ñu waxoon. madame Tall waaw madame Tall. waaw man George lan ma. waaw man maay George. madame Tall yow la man la madame Tall kii mooy George. kii mooy George yëpp benn la waaw. ah yëpp benn. dafa ëppoon. waaw wax ma lu ngeen bëggoon. dafa am ku mu taseel fee ku baax. ñu doon liggéey nag di dox ba sonn. mu ne bu ñu ñëwee ci yow di ñu mën a dimbali. waaw kañ ngeen yegg si fii France defe naa la tubaab waaw ci ay une semaine rek waaw ah mais yéen ba am ngeen kayit France la di ah, il faut nga am autorisation pour liggéey kon nii nii mënoon mënoon ah. daal laa leen mun def ah. ma jàppale leen ah embauché leen pour tey au noir. travail noir noir mooy lan. mooy bi ñu fen mais loolu pour jàppale leen rek aw ma doon def comme su ma mbokk ngeen. mënuma leen bàyyi seetaan loolu ngeen di def. jërëjëf. ma jox leen liggéey comme ça ngeen am lu ngeen dogo. suñu tool ñaata. ah. ay ay par waxtu. Hmm. daan fay 10 euros. junne ah. Ah, waxtu. waxtu ne nga fay ñu 10 euros. waaw ñoo ngi fi ba keroog àdduna tukki. donc liggéey bi daal mooy jël saako ceeb yi nekk ci gannaaw. indi ko rangé ko. fii waaw. jël saako indi fii rek nga jox ma rangé par waxtu nag. baax na baax na su ngeen paree. ñu nettoyé. baax na benn su fekkee d'accord nañ ci kàddu. ñu jox leen blouse yi ngeen commencé. ay zone waxtu ndogu duñu fi fekk de <laughs> seen woor. ah ku mais kooku des na ci yéen. xam nga man waxtu laa leen di fekk waaw waaw. Ah, waxtu yi su bëggee su ngeen liggéeyee sax benn ah, taxaw. baax na baax na waxtu laay fay. baax na ñu dem ma woon leen. waaw waaw horloge soos bi soos bi ah lu xew. li ma fi jot a liggéey laa soxla. ah liggéey bi jeexul di. man pa man maa pare. pare nga. man pare naa la. donc ça fait trente euros. trois heures nga fi def. soos bi nga di. waaw. dama wóor. waaw te lu may wax. en tout cas jox ma ma jox ko trente euros. ay jëfandikoo. yow lu la dal. seen blouse bi. George sa bulu George ko. jërëjëf. yow sa liggéey mbakkanday la. waaw ah sëñ bi fii moom ñii la de. bu liggéey du am dara de. te papa xam nga man dëgg la gaa xale laa xale laa mais il faut am appartement parce que kër gi fii mooy loolu noonu dafa xat ci man am sama indépendance ñoom Alioune Mbaye ñoom Djibi Seye fii nii kër gi waaw moo sama soxla ngeen bàyyi ma ngir yàlla ma dem ci sama appartement. ñaaña loolu macha allah. mais li xale yaa ngi koy def ci France ku am 18 ans wuti sa appartement dem doog dem dëkk fa. suma xale bi Pape Seck doomam dafa am appartement boppa suma xale bi Lupi Diagne doomam ma dafa am appartement dem dëkk fa. doomu jullit dafa moomewul di dem bàyyi ndeyam ak bàyyam te amul jëkkër dem di nekk ci beneen appartement man loolu dalu sama xel. waaw dëgg la xam naa loolu dëgg la mais pas yow sama xarit bi ñu fi damay rus. dañuy ñëw fii nii kër gi du ma am fu ma leen dugal fii du ma am fu ma leen dugal. toog sawtu papa ak sawtu yaay moo sa gàllaaj yaa ngi liggéey yaa ngi am sa xaalis yaa ngi góorgóorlu mais mu ñëw ma ba am jëkkër. d' accord ñaaña ok. Ah, maa fii nag am na loo xam ne boo ko defee nag du ma kontaan. am loo xam ne boo kontaan defal li ma bëgg di nga def li ma bëgg. papa dootul di sa kaw. non baax na baax na dafa xa tey temps bi dafa xaw a xaw naa neex tuuti. waaye xam nga dañu évoluer rek. ok c'est fini. pare. oui. ça y est pare. oui merci pare naa la. non yow jàppale nga. vraiment je te félicite. merci merci. vraiment foogoon naa ne li nga def comme sa xarit bi. mais jeexal nga. donc voilà cinquante euros ngi nii. Euh. pour sa journée. ok. nga jàpp ci lii. merci. et vraiment su ma amatee dara rek dinaa la woo. waaw. moom jàmbaar la dugg naa xaj sa morom. ah oui jërëjëf ok merci. kon bu beneen ah. waa kay jërëjëf de toute façon su ma amee dara ah. rek. dinaa la woo. ok dégg nga. jërëjëf waa kay defi jaar nañ de temps. incha allah waaw Alioune Badara. mais yow lan moo la dal yow. ah ci laat. xamoo. ah dama lay laaj lan moo ma dal. yow mënoo bàyyi sax bu ñu àndee. yaa ngi naan ma xaar ma ma xaar ma yaa gis ma mais damay ñibbi. waaw mais yow ñu ngi ñu tegal liggéey ñu jéng ko ñu ñaar mais doo ñëw ñu kon ne ñu liggéey ko nga bàyyi ma fa. ba eh, ma desservir laa eh, Aline man sama biir bee doon métti dama xiifoon te liggéey loolu rek la. waaw mais ku xiiful ah. ah Aline Badara maa ngi lay wax ni la man de. sàkku ya doon daw ca ca ca ca port autonome de Dakar moom la fekk si fii ci Paris. ay Aline Badara France gi ku fi dugg te amoo kayit amoo xam-xam foo jëm. man ne bu ma yeggee sama làmmiñ laa yoroo xam nga sénégalais yi lu ñu war a bàyyi dina bëtu fii xam nañ ni fii kuy jàng la arrangé baa ko am métier mu wóor ñun ñii di doko ka décoré buñ fi ñëwee mais sonn rek la ñuy ñaari fan laa fi def ñu naan ma yónneel ay Aline Badara woo wooy na nit ñi thank you